complice am lañu ñooñee tamit dinañu leen jéem a teg loxo nee nañu mbir mi ma ci loxol doyen de justice maanaam dañ see ubbi ab instruction Ousmane Sonko njiitul Pastef dafa jàpp ne procureur bi nga xam ne moo doon wax ni ki moom la doon gaarala moom la bëgg a tuumaala lu jëm ci wàllum rébé la waaye nag Ousmane Sonko ci l'Observateur ak ci Vox Populi ak Le Quotidien nee dina porter plainte procureur bi Ousmane Sonko ne un homme doit être courageux a a lu jëm ci wàllum rebelle ba pare nag sàkku daal di koy teg loxo Ousmane Sonko ne maa leen di xaara ndax ñii li nga xamante ne moom la bëgg lépp xam naa ko man la bëgg a jëm ci wàllum rebelle ñëw teg ma loxo waaye nag loolee duñu leen ko may te ñoo leen di xaara Ousmane Sonko njiitul Pastef nee na procureur Amadou Diouf mi ab acteur politique la bu bokk ci Benno Bokk Yaakaar moo yées Bassirou Guèye te du wax dëgg yéen kaay gi de la xëy bi moom kan mooy cible am procureur nee na man mii maay cible procureur Khalifa Sall daal di koy dëggal yéen a Vox Populi njiitu mi di président Macky Sall du institution boo xam ne mérite nañu respecté ko du samay kad kàddu yi Ousmane Sonko la yéen a kaay gi di réew mi quotidien Walfadjri ak le quotidien ak l'observateur ak L'As ak Libération nee na préfet bu Ndakaaru daat nay tere mobilisation bi nga xam ne coalition Yewwi Askan Wi moon nañ ko amal ni ki suba ci àjjuma ji préfet bu Ndakaaru tere leen ko ndax nag li nga xam ne fa la sukkandiku ba tere leen ko dafa lu jëm ci wàllum trouble à ak lu soxal wàllum violation article la leen ci taabal ci na leen tax ma tere mobilisation bi yéen kaay gi de Le Quotidien ñu koy fekk fa ki fi nekkoon maire bu ndakaaru ay jamono Khalifa Ababacar Sall nee na nag danañu manifester par force par force danañu amal nag suñu mobilisation Ousmane Sonko nee na nag mbooleem ñi nga xamante ni askanu Sénégal la ñëpp ñoo ngi leen di woo ni suba si ajuma ji ñu wàcc si mbedd mi ndax nag Macky Sall wàllum dictature dafa war a jeex yéen kaay gi di Direct News nee na nag jàppante jàppante munta ñàkk diggante pouvoir bi ak coalition Yewwi Askan Wi loolee moom c'est inévitable munut a ñàkk mun munta ñàkk diggante pouvoir bi ak Yewwi Askan Wi Ousmane Sonko ne bu ko jaree wàññiwul dara yéen kaay gi di enquête nee na élection député yi nag est-ce que waruñ koo dàq Alioune Tine nee na jamono ci li nga xam ne moo xew ci réewum Sénégal dafa weesu ay élection législative concertation lañ war a def ngir nag jéem a li nga xam ne maanaam mooy solution ndax lii ram sañ ak ba la jëm waxtu bu fa kër du baax yéene kaay gi di 24 jigéen ñi nga xam ne ñoo bokk coalition Yewwi Askan Wi ñoom ay dëmbooc ni ki dëmb ñoom tim jaroon nañu ak tas ko do xabaar ñoom tim nee nañu danañu wàcc ci mbedd mi jàmmarloo ak Macky Sall ndax nag Macky ci boppam li mu nekkee ci réew mi moo dul dëgg moo dul yoon yéene kaay gi ñu koy fekk fa Ousmane Sonko nee na li ma bëgg a xamal Sall mooy mbir mi ci mbedd mi la mbir mi ci mbedd mi la ngi woo ñëpp ñu wàcc ci mbedd mi yéene kaay gi de la sa Macky Sall nee na nag code bi dañu ko war a respecté yéene kaay gi di source nee coalition Yewwi Askan Wi jamono ji këfu ñu réewuñu ñoom nag ñoo ngi woote ab résistance ndax ñoom nee ñu constitution bi moo leen ko may constitution bi moo leen ko may yéen i kaay gii di Vox Populi Ousmane Sonko nee na stratégie pexe yi nga xam ne moom la Macky Sall teka mooy nag jéem a dugal réew mi ci kaw Macky Sall bëgg a dugal Sénégal ci kaw ngir nag am ñetteelu mandat te nag bu mu leen bett bu mu leen bett bu fi Macky Sall créer ab attentat bu mu leen bett de bu fi Macky Sall créer attentat kaddu Ousmane Sonko la nee na nag Macky Sall bu fi créer attentat daal di fi instauré ab régime militaire teg loxo leader yu yeewu askan wi bu mu leen bett waaye nag ñoo ngi koy ndax lépp loo xamante ni Macky Sall moo ngi koy def lu ci bare bare bare xam nañu ko te yëg nañ ko te Macky Sall bi mu demee France ñam fa dalala di ay sénégalais ak ñoo xamante ni sax duñuy sénégalais ka la ñuy waaj lépp xam nañu ko yéene kaay gii de Les Échos Khalifa Ababacar Sall nee na jamono ji pare nañ ngir bàyyi sunu bakkan ci mbedd mi pare nañ ngir dee yéene kaay gii di Rewmi Quotidien bàyyi mbirum politique mi wax ci Tabaski gi nga xam ne nag mooy wàcc xar nar naa cher lool lool lool soxla li nga xam ne nag moo tax xar nar a cher aliment bi xont bi jamono ci maanaam moo cher ba jéggi dayoo banlieue bu Ndakaaru ñi nga xam ne nag ñoo fa di jaay xar xar ma gën a yomb ci banlieue bu Ndakaaru cent cinquante mille lay jara yéen kaay gi di Sud Quotidien nee na bu passé xar yi waa banlieue bu Ndakaaru jamono ci nelawatuñu ba yandora ngir taw yu njëkk yi nga xamante ni taw na ko ñu Ndakaaru moo tax askan wi nga xam ne nag ñoo dëkk ci moom mi nga xamante ni moom la jox joxari baaraamu tuuma lu jëm ci wàllum ngoor jigéen tey jii la ñu koy atte yéene kaay gi nag nee na li nga xam ne moom la ñu gàll ci am ndootama mooy acte contre nature wàllum ngóor jigéen ak wallum corruption de mineur ak wàllum détournement de mineur yéene kaay gi dee sàrt dañu xibaar naan ñu Sadio Mané ca Bayern jamono ji mën nañu lépp pare na trouvé nañu nag ab accord ab déggoo boo xam ne contrat ñetti at lay toona Sadio Mané danañu ko fay at mu jot lu toll ci vingt millions d'euros maanaam treize milliards ci sunu koppar